alxaaj Mouhamadul Moustapha ñi ngi lay delloo nuyoo ci turu sëriñ Afia Bousso mi di imaam ci jumaa ji di njiitul daayira muxaddamatul xidma itam ak mbooleem bureau daayira muxaddamatul xidma bépp di la dellu ay cant di delloo ay ngërëm ci dégg gi nga xam ne dégg nga ko sunu woote te ñëw ci ñëwin wu am solo bi ginnaaw kilifa nga nag goo xam ne yàlla dafa dogal nga nekk ci bopp réew mi nga bokk ci ñi nekk nga bokk ci ñi nekk ci bopp réew danañu la wax ñun taxawaay yi nga xam ne moom lañu am ci liggéey bii bi nga xamante ni ñu ngi digg tawat ji ci biti te ak ci biir réew mi te dañuy wax ne musiba bu mu la sori mukk ba nga jàpp ne doo ci bokk del ñaan yàlla rek bañ ca bokk xéewal it bu mu la jege mukk ba nga jàpp ne ca nga bokk del ñaan yàlla di ci bokk rek loola moo tax dajale woon nañ ñun sunu ay membre waxtaan ak ñoom yee leen ni nga xam ne noonu la ñu ñuy waxee tawat ji ak ñu koy moytoo doon bàyyi xel ne lu ne mën naa am bi yàlla dogalee ñu dégg ko ci réew mi woowaat nañ leen sensibiliser waat leen bi mu duggee ci biir dëkk bi rawatina booba it lañ daal di tàmbali jóg jël suñuy matuwaay bi ñu ko déggee ci biir réew mi rek te egseegul ci biir dëkk bi ajjuma ji nga xam ne moo njëkk ci ajjuma ji nga xam ne wax nañ ne am na ci biir réew mi yii nga indi tey jii moom lañuy jënd ci suñu kat doole yi bopp li ñuy néew néew teg ay ndaw ci bunt yi jumaa ji yépp ñu taxaw fa di ko def ñu teg ci nag lancé appel ci mboolem ñi nga xamante ne bi ñoom ñoom ñoo bokk barab bi te muy barab bu ñëpp yi daje ni nga ko waxee léegi ngir lu mën a jàppe mu jàppe ni mu jàppe ko ci ndax ku ne xam na barab bi ni mu toll ci xolum murid yi ak ni xam ne ni la fi nit mi di ñëwee loola itam ba mu amee yàlla dogal na am na ay benn benn yu ko jot a dégg ba taxawu ci mën nañ cee tudd ne commune bi joxe na fi ci lii dara soo soxna maam xari Mbàkke joxe na fii dara tey jii yow mi itam ñëw nga indi dara waaye nag li nga indi itam dafa am weneen leneen lu ci dolliku te mooy lii ñi ko doon indi ñi ko doon indi dégg nañ ko te rafetlu nañ ko te mat na sëkk te buñ ko indiwutoon dañ koy wuti kon mënu fee ñàkk waaye xalaat gi nga xalaat nag lu ci dolliku te mooy ay appareil yoo xam ne dañ koy monté nga xam ne léegi nit ña doon taxaw di ko di ko def danañ mën a dem defi leneen lii nekk fa wuutu leen nga xam ne dañ koy chargé rek loolu it nag beneen gisin la boo xam ne yow tam wax dëgg yàlla am nga ci mérite ñu ngi la ciy sant bu baax di la gërëm bu baax a baax a baax di la wax ne gis nañu taxawaay bi bu baax a baax a baax a baax waaye daayira bii nag moom lii def dara du ci doy ci moom ndax euh, wax naa ko ci fu bari soxla nañu yii waaye soxla nañu it nag nañ bàyyi xel ne barab yi nga xam ne ci lañuy waajale waay waajale way de way dawli muy armeel yi ak euh, morgue yi yow waxuma sax yii nga xam ne ñun moom la ñu waaye yi ci Tuubaa yëpp laay waxal maanaam ni ma koy faral a waxee tàmbalee ci armée li Mbusoo ba yi ba ca yow ca Gede ak yi nekk ci diggante bi yëpp ci ay nañ leen a bàyyi xel bu baax ci lii ak appareil yii waaye ak ay lu demee ne ay gants lu demee ay masque lu demee ne ba ci gilet yi nga xam ne moom la ñuy sol ak dàll yi nga xam ne moom la ñuy sol ndax niñ koy faral di waxee ni nga xamante docteur yi yi faj nit ñi yore jàngoro yi noonu lañ soxlaa protection ñi nga xam ne ñi ngi liggéey ci lii noonu la ñu soxlaa protection te ni nga xamante ne docteur yi mëneesu leen a ñàkk ndax nit ñi faaw dañuy tawat di faj ñii di tax too ñi faatu itam mëneesu leen a ñàkk ndax faw ay nit dañuy faatu ñu leen war tax kon nag société bi ñoo leen war a yoral seen sécurité société bi itam ñoo leen war a défendre ñoo leen war a protéger itam kilifa gu toll ne yow nag kon bu ñu toogee ak yow jii rafet lu liggéey bu am solo bii nga def waaye initiative bii nga ci dolli nag te mooy kii nga xam ne indaale nga ko tey jii nga xam ne ni dana wuutu ñi nga xam ne xëy na dañoo waroon a bàyyi fañ nekkoon di liggéey topp nit ñi di leen defal tey danañ mën a nekk fañ doon liggéeyee nga xam ne kuñ joxañ rek nga mën a dem fañ koy defe defe ko fa loolu itam kon ñu ngi la ci sant bu baax di la gërëm bu baax waaye di soññi ne comme ni nga ko waxee léegi mboolem ñi nga xam ne itam ñu ngi bàyyi xel ñu bàyyi ñu bàyyi xel ñooñu ci jumtukaay yoo xam ne danañ dana leen mën a aar ñoom itam comme ni nga xam ne noonu la ñuy arrêté ñu ngi lay sant nag bu baax di la gërëm ci taxawaayu démb bi yow naka jekk fii ñoo ko mas di bokk ñoo mas di ànd ci liggéey bi booba mbir yi egseegul fii waaye da ngaa xam ne taalibeeb Sëriñ Tuubaa nga dëkk ci dëkk bi war a bokk ci lépp loo xamante ne bi lu jëmale liggéeyub Sëriñ Tuubaa bi kanam la nga di ko def yaakaar naa ba ngay ànd ak président bi ko indi fii booba doonul woon président waaw ba ba booba ak itam waxtu wu ne yaakaar naa koor gu jot ñëw nga fii fekk si ñu fi ànd ak ñun dégg euh, teewe waxtaan wi teewe ndogo yi ñu fi def loolu nag mooy wane ne na ko daan defee démb noonu nga koy defee ba tey mooy wane ne lii ngay def loo gëm la daraja ju dolli ko taxul nga bàyyi ko nekk ci pouvoir itam taxul nga gis ne taali teewul nga gis ne taalibu Sëriñ Tuubaa nga boo xam ne da war a ànd ak taalibu Sëriñ Tuubaa ci li ñu def kon ñu ngi la ciy sant bu baax di la ci gërëm di ñaan suñu borom mu dolli leen tawféex dolli tawféex itam mboolem ñi nga xam ne jiitu woon nañu ci li ci ci lii ak mboolem ñi nga xam ne danañ la ci roy sa ginnaaw